papi ndekki nga ma pare. waaw ah, ça va alhamdulilah ndekki naa. tànk waxtaan ak jéggalu mu indi tay. Hmm. bisimilah. parce que boo seetloo bi ma ñëwee ci kër gi ba tey jàmm amatu fi maa ngi lay sonal maa ngi sonal sa njaboot. lépp loo xamante ni nag tey dama fi nekkoon di ko def samay coobare bopp la mais li may njëkk a jéggalu mooy li nga xamante ni dama ne daf ma dal te amut loolu laay njëkk jéggalu waaw parce que ay weer ci ginnaaw ñëw naa fekk la ci saal bi la damaa tollu diggante te loolu dara amu ci. yow ëmbuloo jarutatu dara daluma te it daanu yi nga xamante ne maa ngi ko doon def ci kër gi ak dof-doflu bi ak lépp dara amu ci nag. guddi giñ ma muuree ma ñëw sëy si fajar gi nga génnee ni ma dangay dem jàkke ji am na lu ma jóge lu dugg ci man te li dugg ci man sonaloon na ma trop xawma tamit lan la ma koy dund nag mu metti woon trop mais bis bi ma booleeg jingis ma jël ay garabam jour boobu laa sentir mu denc man ba set wicc xanaa kay dama ci doon jouer rek defaale ko occasion pour am li ma bëgg ñaareel bi mooy sekk moomu nga xamante ni sa xarit la nga jox ko xaalis bu takku mu ni daf may faj defu ci man dara jour bi ma ci ëtt bi yéen ñëpp ngeen tiim ma lépp loo leen wax moom sama nopp bi musuma nelaw xanaa kay dama doon bañ a yàq seen diggante rek moo tax waxuma li ma doon def nag jubluwuma ci woon lenn lu dul wujje wujje rek moo ma sonaloon dama ñëwoon rek pour séparer la ak say njaboot génn leen ñoom ñëpp desat yow ci kër gi loolu moo taxoon may dof dof loolu moo taxoon may ëmb ëmblu loolu moo taxoon may xeex loolu moo taxoon may xuloo mais maa ngi lay wax ni leen sa ñetti jabar yi ci kër gi ay jigéen lañ te ay muñkat lañ parce que li ma leen teg yépp man benn rek buñ ma ko ci tegoon duma fi toog mënuma ko muñ sonaloon naa leen torop xañ leen jàmm surtout yow mi nga xamante ni yaay sama boroom kër grand place bi sax dama toof nangoo too kenn seet si la parce que yaa ngi xalaat ku ñëw ci kër gi ma gàcceel la dama too fenn ma nekk ci jàmm même boo tëddee sax doo nelaw ndax di ma xalaat muy coono gi nga xamante ni maa ngi la ko doon teg ci kër gi moo tax sama tànk yi tànk jébbalu la tànk balu la àq la ndax lii nga ma muñal góor gu baax rek moo ko mën a muñal jabaram te nekk nag jabaram du fut defu dara mais mu feebar rek mu beddi walla mu am benn problème bu ndaw mu beddi ko génne ko këram mais Alaaji xoolal ñaata weer ma nekk ci sa biir kër gi di la naqaral di xuloo ak yow di xeex ak yow Alaaji jëlal naa la ba jëlal la kuur say jabar mayu ma leen jàmm di leen jiñ sàcc di xuloo at ñoom di xeex at ñoom sab doom ji nga xamante ni benn la rek moom nga am muy mareem mu ndaw xale bu yaru la suma dépassé mais amut lu ma ko defu ci kër gi ñi rek génne leen kër gi est-ce que man coono gi ma la woon ci kër gi yëpp at ni ma la sonale que boo ma baalee loolu yàlla dina ma ko baal laa ji sama àdduna yaa ko defar dama sonnoon ci sama àdduna dugg ci sa biir kër waroon a jëfe comme jigéen ju baax doon royukaay toog muñal la sëyal la rek te yàlla tax mais defuma ko dama fi ñëwoon pour bëgg la tàggale at sa njaboot dama fi ñëwoon pour bëgg a yàq sa àdduna. non non non bàyyil jooy bàyyil jooy bàyyil jooy s'il te plaît euh, bàyyil hmm? dama la ko ñaan bàyyil jooy. est-ce que man méritoo naa jëkkër ju mel ni yow man est-ce que méritoo naa toog ci kër gi. ba tax na tey dinaa sukk raam jéggalu baal la àq mais bis ki li des ci sama dund yow yaa ko moom lii nag bëriwut mais dama ko ñëw pour jébbaloo nga wàcce kaamil ci kër gi ñaanaleel ma ma dee ci kër gi am fi njaboot gu bari te maa ngi lay waatal ni parce que ne tey jébbalu naa ci yow ci àdduna ak illaaxira tey dinaa doon jigéen boo xamante ni may jigéen ki la gën a bëgg ci àdduna dinaa doon jigéen boo xamante ni may jigéen gi lay gën a muñal ci àdduna dinaa doon jigéen boo xamante ni may jigéen ji nga xamante ni dinaa la bégal dinaa la toppatoo say waaw mooy sama waaw say déet mooy sama déet laa ji jéggal ma bu ma jéggalul rek naa la baal naa la Jami baal naa la calme toi Jami bàyyil jooy <laughs> Eh, alhamdulilahi rabbil alamin waxal alhamdulilahi rabbil alamin sant yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa eh, jami ba ma indi ci kër gi jàmm laa bëggoon ci kër gi bu yokk ndax amoon na jàmm ba pare ba ma indi ci kër gi juboo laa bëggoon mu continuer ci kër gi parce que amoon na fi ba ma indi ci kër gi naataange laa bëggoon ci kër gi ndax naatoon na ba noppi mu gën a naat laa bëggoon euh, jaar nañ ci situation bu ne lu ne nga teg ma ko teg ko say def ma ko def ko say boo fi nekkoon di lim li nga def fi lay fanaan lépp ma muñ ko doyloo yàlla dem naa ba may la baat ndax booba sonn naa àddina bi safatuma dara nga may laaj lu ne di ma teg lu ne waaye sant yàlla am na loo xam ne wujje jaru ko wujje jaru ko ndax wujje bokk wërsëg la yàlla boole leen ak benn borom kër ngeen war a ànd def coalition bokk ndey bokk bàyyi jox sa jëkkër cër fonk ko bëgg ngeen mën a am njaboot bu baax waaye li nga def kujje jaru ko jarul roy kujje jarul yi jarul lu mel ni lii nga def kujje jarul jamante kujje jarul sottante ay ndox mu tàng kujje jarul ay liggéeyante ci ay sëriñ kujje jarul yàqante déedéet kujje kay booloo la bokk wërsëg la ànd jubo bokk ndey bokk baay jaxasoo ka mag jiitu ka ca topp topp ca mais maa ngi sant yàlla bu baax a baax euh, bal naa la àq jami baal naa la ndax jullit laa baal naa la ndax laa takk ci farataak suna si yàlla Muhammad baal naa la ndax sama jàmm moo tax ma indi la ci kër gi bëgg njaboot ku barkeel jërëjëf ba sa xel di kàtti jërëjëf ba nga waxtaan ak sa njëgënaay ba xam ni lii nga nekkee du dëgg du yoon da nga ko war a taxaw danga war a arrêté lépp ñëw ci sa jëkkër ko jigéen ju baax noonu lay baal naa la ci xol bu sedd guy baal naa la te it boo paree nga jóg dem ci say nawle yii nga nekkal ci kër gi bokk ak ñoom di sëy bokk ak ñoom benn borom kër demal ko ci nekk ci ñoom nga waxtaan ak moom baalu ko àq. yéen am. incha naa ne sax ñoom ñëpp daañu la baal parce que ñoom ñëpp dañu la bëgg dañu laa bëgg ci seen biir xol sa ñëw fii nekkul leen naqari baal naa la baal naa la ku bëgg la baal naa la ku la fonk la baal naa la parce que dama laa indi sama kër ngir kër gi gën a naat ngir kër gi gën a am jàmm ngir kër gi gën a suqaliku alhamdulilahi rabbil alamin ba nga gisee lépp li nga xam ne moo fi amoon te mu ni lépp ay pexe la woon rek pexe jigéen la woon reconnaître nga ko kontaan naa tàllal sa loxo ma ñaanal waxal amin nag yow tamit. chérie. waaw maa ngi nii waaye jàng xam nga lu mu mënta muñ. Omary Badiane. Omary dafa neex. man damaa xam nga ah. kër. Mhm. deful lu dul naan ma dama dama dama naroon dem man ko dem fan mu ne ma àllaaxira. <laughs> moom moo àllaaxira neex la def. non damaa naroon dem àllaaxira waaye léegi damay toog bi ma la gisee bëgg la léegi dematuma àllaaxira man ko tey ngaa toog mais lii li ma ko ree dama neex te nag jabar ji noonu la baaxee. Hmm? billaahi baax mën a muñ. dafa baax la ay waay wallaay saykat la. Hmm? mais góor ñii ñoo dooy waar sikk rek. góor ñaa ngi noonu rek. Ah? mu bàyyi ko fa ñëw fii di pasar pasare xaalisam waaye bàyyi ko dina xam ne penda <laughs> la fi fekk moo tax dañuy xas ñun xale jigéen ah. mais góor ñi lépp ñoom la lépp ñoom la yow sa jabar bàyyi ko fa ñëw di noos neena na ma ay terrain terrain la yoroon seen dëkk lépp la jaay man mii sax may na ma benn di <laughs> nga ni ma <laughs> may na ma benn ba mu naan ma ba muy lijjanti bi diggante bi la ni ma boo ko ci may naa la benn am nga problème nag bu mag yow mi bokk ak moom kër moo taxit lu ne yàq na ma ko. bu ma wëree bu ma gisul ci yow lay ñëw. lu ne yàq na ma lu ne. ma dara dara dara bàyyi lu ma ko. wa damaa jommi. xeetu ñuulaayam. waaw xeetu bolo gi ëmma di. ñeme ni lon moom dina ruy. dina ruy de. ñeme ni lon ndekete ëmmari ma dama ko xeeboon defe ni yoru dara. mais ndekete ëmmari yor na xaas da ko bàyyi dëkkam. doo ma bàyyi ëmmadi yor. mais def leen ci moom attention nag. Hmm. ci ëmmëri wax rek lay def. déedéet amul bàmmeelu biir de. baadu sama kër lay ñëw toog ma koy raayal bopp bi hmm. di ko def sama affaire yooyu yaa ma gën a. day teppeeku di wax lu ne lay wax seen waa kër moom lu mu leen xamal da koy génne. déedéet lu xam da koy wax. Hmm. fii lay toog ci àllaaji la koy commencé. maa ami may aawoo ba mareem. ba ca ñeenteel ba la muy tekki seen der yi. déedéet weñ bu ci daal dee. yow daal la dul tudd ñemewu laa tudd nag parce que xam na ni ma demee ak yow. waaw loolu la. mais waxkat la def leen attention ci moom bu baax. te bu mu la xamal dara. day wax de day wax waxkat la. <laughs> waaye wuy ma nag jàng sama mm-hmm. wàll. ah. ah da ngay laaj wala. damay laaj kay. ma temps la ñamaloon naa la deux cent mille. Ah. toogal dégluwaat ma. Mm. lii ñëw nii moo dàq. mooy dàq ah yow tamit ñeme ah, naa lekk di la bàyyi. kon baax na jamais du ma def loolu ndax nag lépp yow la ah, nag. tëgg <laughs> lépp de. yaa ko tëgg hmm? moom. Euh, Fatou naa quand même waxtaan. bëggoon naa ñu waxtaan. am naa lu ma métti trop. ah te yaakaaroon naa ni maa ami euh, li may métti du jóge ci moom mukk ci kër àddina. déedéet kay maa ami. Euh, figure toi que maa ami. Mhm. est-ce que yeggoon nga ni maa ami dafa am doom. doom. ami am na doom ju jigéen. <laughs> appel anonyme laa jot. ñu jox ma information bi. may def samay rance investigation di def samay investigation di def samay investigation ba jot information yu leer hmm. ma convoqué ko mu toog ma toog ma laaj ko parce que dafa tiit hmm. mooy tiit ma ne ko maa amee vingt ans nga am doom mu sooma ko wax ma ne ko yow bett nga ma non Fatou Sognane man fi mu ne sama addina bi non am na loo xam ne vraiment man yaakaaroon na di jóge mukk ci maa ami elle m'a déçu elle m'a déçu dama ko mujj abandonné ci salon bi dem sama yoon ay waay barki dem fa laa waroon ay mais non non am na yoo xam ne ça ne marche pas en plus de cela ñu ne maa ami mhm. ma foog ni fa la yem jamilatu jamila ñu jamilatu moom elle est venue ma ci salon bi ne ma ma soxla fa ma fekk mhm. ma toog di ko déglu mu ne ma dafa may bàllu ak sama nijaay bal ma àq parce que mhm. dama tooñ je n'en revenais pas ma jaaxle mhm. mu ne ma woy parce que man ah li ma doon wax ah est-ce que xam nga ni jamilatu ëmbul laa ilaha illallah waa alaaji <laughs> xamoon naa ko gis nga man naka jekk ma xam ne jamila mii day jouer théâtre mais man xamoon naa ne ëmbul mais Jamila mi yow yow yow Alaaji Jamila yabaate na de ak man jooyloo jooyloo na ma si toog naa ci ay ruq di wéet di souffrir defe ne Jamila dafa ñëw ci kër gi man mi am fi trois ans mënu maa fexe ba ëmb non Jamila mooy baadoo la. li ma ci jël ci ay ordonnance kenn xamul nu mu toll li ma ci jël ci ay frais kenn xamul nu mu toll. yow maa la freiné sax sinon kon nga gën a daanu. ñëw fekk ma ci salon bi nag ne ma ëmbul vraiment dara mosu koo dal. ma ne ko alhamdulilahi rabbil alamin ma defi ne fa yem xam nga moom la du ma la dëpp mhm. feebar bi ko daloon effectivement feebaroon na hmm, waaw faj bi du ma la nëbb moo sëñ Modou Jingis faj na ko ba mu wëree nag mu xool xam naa situation feebar bi na mu doon vivre kër gi nappaate di ci talaate mhm. mu ne da koy continuer mu nekk malade imaginaire ndexete feebar ba dañ na bu yàgg hmm. mu utiliser ko comme feem pour gën a mën a wujjee gën ma mën a posséder je n'en revenais pas mais nag mhm. baalu na ma àq loolu taxoon mu ñëw fekk ma ci saal bi génnee xaalis du mhm. tolloo lu bëri ci ay junni teg ko ci sama loxo ne ma dafa bëgg ma wàcceel ko kaamil ñaanal ko ñaanal leen ñaanal kër gi far soñaan julit laa mhm. julit buñ la tooñee war ngaa baalu sama xarit ba ndeysaan Pape Siré Dia DG président du conseil départemental daana ma naan Ndiaye jullit lañu ku ñu tooñ dañ lay ku ñu tooñ dañ la war a baal bu la boo baaloo mhm. da nga war a baal te baalu na ma ak baal naa ko mhm. parce que nag lu mu nee néew soxna la ni yéen mhm. xam naa la nag nee naa ko na ñëw baalu leen ak bu ñëwee la baalu ak ngir yàlla war a suuli baal ko da ngeen jël problème bi gas ko suul ko ñu enterré ko parce que kër gi jàmm ji fi nekkoon ba ngeen fi nekkee loolu laa bëgg mu continuer jàmm bu amee te je suis offrir leen une grande fête boo xam ne waaw bëggee rek hmm. waaw la daal. na man de Alaaji xam nga ne man jàmm rek laa bëgg ci kër gi. Hmm. su ñëwee baalu ma dinaa ko baal. Hmm. ndax man yow boo amee jàmm. ñun dañuy am jàmm. kon jàmm rek laa bëgg. dëgg la dëgg la. dama ko fàtte woon. Ah. waaw ndànk. dafa xaw a sori. dafa sori waaw yow noonu waaw. dafa xaw a sori. kon mhm. bee sama affaire. ah ananas bi dama bëgg. <laughs> ok ah alors sant. cig ara andi aan ka bandam. Mhm. te neɗɗo ko banndum euh, jeeyami ko tulde gaala jeeyɗa ko ñanga idi hakkunde min e ma wona hannde mbeɗa yiɗma aɗa yiɗi kam e tuye ma préféré an woni ɗo holto mbaɗmami holto mbaɗ holto mbaɗɗa kam o e, tawi mi muccanɗen hoto ɗi kay mbaɗata sa waɗi ɗi mi muccat <laughs> saa wari di mi muy nag bii daa muy nu de xam nga nu may def mm. ah damay ñëw nag seetal la le le maestro kookoy kan ah, ah l'empereur de la musique ah ah mondiale et africaine et mondiale Alaaji Baba Bey di Maal le le l'empereur de la musique di Fouta Toro l'homme qui a vulgarisé la musique pulaar à travers le monde entier Alaaji Baba Bey di Maal le grand le maestro des maestros, Aladi Bedimal, qui fait vibrer les scènes, les scènes musicales du monde. Aladi Baba Bedimal, Grammy Award, le maestro des maestros. Hello, hello, hello, hello. Oh, Baba Bal! <laughs> tànkee métti abula wala lam la de mango lady o man allah jina ma mango wango adi ni gole ah lady o oh baba mal de chan oh ay ko ah, ni de ko ni kay ah kuni kuni ah jam ma école nani safini law ah ndaja liggéey ma naftoro da naftoro ye mamade ma suma jalo jalo oh oh oh oh Adi Mayan eh Baba Man waale zaman oh. Anjola ndeysaan. Oh. mi doucement Anjola oh di ko may la famille Hamadi Kumbel Ndiaye oh Ibrahima Ndiaye ñoo <laughs> bay sa Hamadi ñëw di ko may waatul de jaaree sama waa dëkk ak waa Ñanga waa Njum waa Podor waa Île Omar Fil ah ah, ah. Eh, eh. ndeysaan oh. waay ah. <laughs> ci desoon nag.